moo tax sëriñ sëriñ li mooy junji mooy jox la xam-xam jox la jikko ju baax jox la jëf ju baax xaqiqatan loolu mooy sëriñ de waaye du joxe hadiya du bay tool du siyaare ñoo benn kàddu rek alhamdulilah asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi nuyuwaat mbooloo mi bu baax di leen ziyaara di leen ndokkeel nuyu kenn ku nekk turam ak jëmmam di yëgle rek bisi boo xam ne bisab mbit na bàyyi Kaffrine la bisab ndukkumaan la waaye bisab xadara xadara Cheikh Ibrahima Niass yëpp la muy bisab Cheikh Abdou Barhama ngan gi nga xam ne imaam Cheikh Tidiane Aliou Cissé daan na ko gane si Cheikh Abdou Barhama ci biir koor gi la ma imaam xoo ne ma dama bëggoon ñu jàpp ngan gi ma ne ko xoolal fi nga fiix nga jàpp ko imaam nag xool na ba gis na ne la 16 juillet le 6 juillet incha allah le 6 juillet le 6 juillet le 6 le 6 juillet incha allah mooy nekk ngan gi juróom benn fan ci weeru juillet mooy nekk ngan gi incha allah nañ ko waajal bu baax a baax a baax a baax nañ ko daan waajalee nañ ko yokk bu ci dara wàññeeku lépp luñ defoon daaw nañ ko xeeb ren ñu def lu raw loolu yàlla na yàlla may ñu ci ndam. yàlla nañu ci yàlla may ndam yàlla na bés bi ak si ki jàmm fekkee ñu wërsëg bu baree baree baree bëri yàlla na imaam ñëw yàlla nañ ko tirangal ba mu kontaan ci wërsëg ci ñam yu neex ci xol yi dal ci xol yi teey ci mbëggeel ci Baay Ñas ak ci jëmmam yàlla na yàlla may ci loolu yàlla nañ bés fekk fii yàlla bu kenn manqué yàlla bu kenn manqué ci barke Baay Yaara bi kon na ko ñëpp yëg le 6 juillet incha allah juróom benn fan ci mois de juillet mooy nekk ngan gi wasalaamaaleykum wa rahmatullahi boobu wax sëriñ sëriñ li mooy junji mooy jox la xam-xam jox la jikko ju baax jox la jëf ju baax xaqiqatan loolu mooy sëriñ de waaye du joxe hadiya du bay tool du siyaare